أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله هو الله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 wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baada asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu àq di leen baal àq di amaat mbégteeg kontaan te ñëwaata ak yéen seen tafsiru quranul karim xam ngeen tey mooy suñu ñaar fukkeelu fan ak juróom-ñaar ci weeru koor bi di suñu juróom-ñaar di suñu ñaar fukkeelu fan ak juróom-ñaar ci coor ramadanul mubarak xam ngeen ni guddig démb gi bokk na ci guddi yu tool yi nga xam ne dañ ciy séentu laylatul qadr lépp luñ ci julli lépp luñ ci jàng alquran lépp luñ ci saraxe lépp luñ ci ñaan yàlla na ko yàlla nangu yàlla na ko yàlla def ci misaanu xasanaat yi yàlla na yàlla barkeel yàlla ba mu nekk suñu mujjantalu koor mbokk yi xam ngeen ne ñu ngi ci suratul xashri ba léegi suratul xashri nag tey suñu darsi tey mooy nekk fin bi mooy nekk mujjantalu suratul xashri tey lay jeex incha allahu rabbi démb ñu ngi woon ak yéen ci yàlla bi muy wax ak yéef jullit ñi ne leen yéen jullit ñi ragal leen yàlla yéen ñi nga xam gëm ngeen yàlla ragal leen yàlla te ngeen jiital lu baax loo xam ngeen ko mën fekk ëllëg yowmal ndax lu ngeen di def rek xam ko te bu leen mel ni ñi nga xam ne dañoo fàtte woon yàlla yàlla fàtte loo leen seen bopp ñooñu ñi nga dañoo yàlla ñëw nag di ñu wax ne ndax ku baax ak ku baax ku baaxul dinañ yem ndax ak safara dinañ yem mu ne yastawi du yem ashaabu naari waa safara yàlla ñu yàlla ci safara wa ashabul jannati ak waa àjjana mënuñoo yem ñi dugg àjjana ak ñi dugg safara du ñu yem imaginel tey rek fii boo jëloon euh, siwo def ci ndox bu sedd glace jël boyal ko mu ñaar yooyu boo ko tiimee mënuñoo yem bee day sedd guy bii tàng jër ñu nekk safara dañuy sedd guy nekk ci ay noo kii noflaay ñi nekk safara nag tàng jër seen deru yaram ya di simmeeku yàlla nañ ci yàlla musal yàlla mu ne ashaabul janna waa àjjana humul faizun ñoom ñooy ñi gañe bu doon concours la dañu ne waa àjjana raw nañ waa àjjana gañe nañ ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy nekk fu sedd fa fii jannatin wa uyun Nek ci ay àjjana ak ay bëti sew na yoo xam ne ñu ngi leen di eh, berndeel yatuufu alayhim xilmaanun muxalladun ay xale yu ndaw ñooy ñëw di wër si ñoom waaw eh, di leen di leen servi ñuy lekk ñu nekk ci ay tool yoo xam ne xutuufuha daaniya meññantan bi day jege ba nga xam ne soo rek mu ñëw placé wu sa sa sa sa gémmiñ waaw ñu nekk leen di xéewal façon xéewal boo xalaat rek waa àjjana ñu ngi koy xéewlu kon nag ñooñu moom mooy ñoom ñooy alfaa'izuun ñooy ñi gañe heure ba ñuy nekk ca loola waa safara ñoom ña nga fa moom ñi leen di lakk ci safara soo xam ne tarmi bi shararin kal qasri ka annahu jimalaatun sufr ay saf safara soo xam ne ferñeent yi rek yàlla la dafay ngand ba mel ni ay gileem yu xonq wala ay étage yu yu gudd ferñeenti safara rek noonu lay toll yàlla nañ ci yàlla musal kon daal yàlla mu ne laa yastawi du musa yem ashaabul naari asxaabu naari waa safara wa asxaabul jannati ak waa àjjana mënuñoo yem boo dugee sax néeg bu am kilima ak amul clim rek sax yemuñu waxuma laa nag safara ak àjjana yàlla mu ne asxaabul janna waa àjjana humul faaizuun ñoom ñooy ñi gañe ñoo nekk ci xéewal ya ci fay yu màgg ya ci place kawe ya ñoo gañe ñoo ñoom ñooy ñoo raw yàlla nag di ñëw ak ñun ci doomu aadama yi ci dëgër boppam ci bañ a bañ gu mu bañ dégg dégg alquran bañ koo nangu aay bi booy xool dafa mel ni yàlla daf ñu ci yedd wala daf ñuy xas wala boobu defoon doon xas yi nga xam ne ñooy yéefar yi mu ne yéefar yi law anzal naa gis nga su ma wàcce woon ñun yàlla bu ñu wàcce woon hada alquran bii la alquran téere bii di alquran suñ ko wàcce woon ala jabalin ci montagne bu rëy si doj doj gis nga doj nu mu doj boo xam ne montagne la xeer bu rëy te diis yàlla mu ne bu ma ci wàcce wal quran la raaytahu di nga gis doj ba xaashian muy way toroxlu alquran si nit ñi lañ ko wàcce ñu di ko dégg su baa ngoon du leen def ni chaud ni froid du leen du leen def dara te yàlla ne ne su ma ko wàcce woon ci aw doj la raaytahu di nga gis doj ba xaashian muy way toroxlu mutasaddian di way xotteeku bu ñu wàcce woon alquran ci doj day mokk ndax day toroxlul yàlla ndax lu diis li nga xam ne moom la yàlla wàcc ci kawam ak nañuy ragal la yàlla min xachatillaahi ngir ragal yàlla waaye doomu aadama bi moom mën na koo dégg yàlla naan ko defal du du ko faale bul def yoram newu ci dégg alquran am ñoo xam ne sax yàlla nattu na leen ba musique déglu musique moo leen gënal déglu alquran allahu akbar yàlla mu ne wa tilka lamsaalu yii la lépp nadribuha dañ koy sadd linnaasi ñeel nit ñi laallahum yatafakkaroon ngir ñu mën a xalaat bu ngeen gisee man yàlla ma leen di wax lii yëpp dama leen koy wax pour ngeen mën a xalaat pour ngeen xalaat xam ni alxuraan dafa rëy dafa màgg da ngeen ko war di jàng yéen jullit ñi di ko settantal waaye nag bu ma ko wàcce woon ci xeer lu muy rëy rëy xeer ba dina mokk dina toj dina xotteeku yéen ngeen nekk nit ñu oyof ñu néew doole nit ñoo xam ne yàpp ak deret dong ngeen amul leneen gën a tuuti xeer doj bu daw leen seen kaw ngeen pacc yéen ñooñu alxuraan su ma ma wàcce ko seen kaw toppatoowu leen ko ñu bari ci yéen te buñ ko wàcce woon ci aw xeer mu lu mu daal di e, toj kon war nañoo xoolaat suñu bopp ak alquran yàlla nag fin aaya bi fin saar bi nag mu ciy bàkk boppam hmm. yàlla bàkk na boppam yàlla kañ na boppam moom rek moo ñu mën a wax moom mooy kan ndax moo xam boppam xam nga nit dañ naan loo xam-xam nit ki nit ki gën laa xam boppam waaye yàlla nag moo ñu xam moom mooy kan aaya yu mujj yi daf ñu ciy wax moom mooy kan mu ne huwa moom allahu mooy yàlla allazi même bi dañ ne ko yàlla mooy kat mu ne allazi yàlla moom mooy ki nga xam ne laa ilaha illa huwa amul beneen buur bu ñuy jaamu ci dëgg ku dul moom moom kot moom dong mooy yàlla laa dafay dàq amul ilaha beneen yàlla boo xam ne dañ koy jaamu ku dul moom keneen ku ñuy jaamu ku dul yàlla dañ koy nax yàlla rek mooy ki jaro jaro jara jaamu mooy ku yeyoo jaamu ki nga xam ne moo yeeyoo wéetal kennal ko ndax ki nga xam ne moo lay rey ki nga xam ne moo lay wërsëgal nga lekk moo la defal yaay ak papa defal la ay nopp defal la bët defal la lépp waay waay waay kookoo jara jaamu moo tax mu ne buñ ko nekk yàlla mooy kan def ni yàlla mooy ki nga xam ne la ilaha illa huwa amul benn buur bu ñuy jaamu illa huwa ko dul moom nga ne ba tey yàlla mooy kan mu ne aalimul xay bi yàlla mooy ki denc kumpa lépp loo xam ne ñëwagul moom moo ko xam moom dong nag lii ñëw suba ñun xamuñu ko yonent bi nee na su ma xamoon suba kon dinaa fàggu ba dara lu bon du ma dal geex geer nañu gañe ko su xamoon dañ koy du dem wala dina xam nu muy def ba du kenn du ko gañe yàlla rek mooy xam li mooy borom aalimul xay bi moo xam li ñëwagul wa shahadati moo fekke lépp moo seede lépp ñu ne ko yàlla mooy kan ba tey yàlla yaay kan mu ne huwa moom yàlla arrahman mooy ki yërëm doomu aadama yépp ci kaw suuf ki nga mboolem ñi ko gëm ci kaw suuf jullit ñi nar leen a dugal àjjana waaye arrahim mooy ki yërëm ñëpp nag mooy ki nga xamante ne nii tey jii boko ko jaamu boo ko jaamuwul yërmandeem yaatu na ci kaw suuf di nga di nga nooy ci eeram bi asamaanam si dina taw ci ndox mi suufam si ding ci tabax di ci dëkk kon ko moom mooy ki nga xam ne mooy yërëm mboolem mbindeef yi ci àdduna ñu ne yàlla mooy kan ba tey mu ne huwa moom allahu mooy mi nga xam ni laa allazi yàlla mi nga xam ni laa ilaha illa huwa waxaat na ko de amul benn buur bu ñuy jaamu kudul moom moom rek moo yooyoo jaamu moom la ñuy ñaan moom dong lañ moo tax ñuy julli moom dong moo tax ñuy woor moom dong moo tax ñuy joxe azaka moom dong moo tax ñuy jaamu bu ñu nee jaamu mooy lépp lu mu santaane dañ koy def te moom rek mu tax duñ ko bokkaale kenn wala lenn keneen koo gëm ni mën na laa jariñ mbaa lor la mbaa mu dundal la mbaa mu rey la ah, <laughs> yaa ngi nax sa bopp waaye yàlla moom mooy ki jara jaam almaliku mooy buur amul kenn képp koo xam ne nguuram mën naa kawe nguurug yàlla yàlla rek moom mooy buur yàlla moo amal lépp buur mooy ki nga xam ne moom moom lépp yàlla nag moom moom lépp amal lépp lépp ci loxoom la tegu kaw na bi li muy rëy rey lu muy yaatu yaatu àdduna bi moom moo koy doxal nu mu ko neexee di ko soppi nu mu ko neexee alquddus mooy ku sell sel yàlla rek moo sell sel, gën sel sell lépp luy sell waaw mooy nga xam ne moo ci lépp loo xam rek euh, lu lu lu lu lu ñaaw la wala lu bon asalaamu mooy jàmm moom moom jàmm moo koy joxe yàlla nee naa leen dafay kañ boppam dafay bàkk boppam dafay tagg boppam ndax moo xam boppam yàlla mooy ki nga xam ne mooy jamu, al almuminu mooy ki ñëpp gëm te wóolu ko mu lo ñëpp nak mu wóoluloo nyep ñëpp am kóolute ci moom ñu wóolu ko ne dinañu dugal àjjana buñ ko jaamoo almuhayminu yàlla mooy ki nga xamante ni moo mën lépp fekke lépp moom mooy dogal lépp moom borom bi subhaanahu wa taala waaye al azizu mooy ku tedd ki de amul ku gën a tedd yàlla yàlla moo gën tedd lépp gën tedd ñëpp subhaanahu wa taala aljabbaaru mooy ku not ci kàttan su ko neexee tey mu boole yaay ak doom rey kenn du kenn du ci dara su ko neexee oto bi sëf nit ba mu fees mu këpp kenn du ci mën dara boo koy aljabaaru mooy kii def te kenn du ne lu tax lan moo tax nga def ko lu ko neex lay def waaw kooku mooy yàlla almutakabbiru mooy ku kawe te màgg te rëy amul lenn loo xam ne gën na koo kawe moom borom bi subhanahu wa taala ba mu waxee nag ay melokaanam mu ne subhaanallahi sell ñel na yàlla amma yushrikuuna ci lépp lu ngeen koy bokkaale ay waay doomu aadama day waroon naa fayee yàlla leneen lu dul yàlla dara waaye te yàlla ni mu màggalee boppam ak ni mu mel ak li mu def lépp nee naa ki bind asamaan ak suuf bind doomu aadama bind géej ak géej ni mu mel bind garab yeeg xeer yeeg yooyu waay waay waay waay kii bokkut ak nit waay kii du doomu aadama kii waruñu koo tëkkaleeg nit kii mooy war a kii la ñu war a jaamu moom lañu ñu war a màggal moom lañu ñu war a sàbbaal moo war a sell moo tax mu ne subhaanallahi sell ñel na yàlla amma yushrikuuna ci liñ koy bokkaale ku lekk war nga koo sant war nga koo gërëm ku yeewu saa xëyee war nga koo gërëm di ko sant te kat li gën a neex ci ak santam mooy saa koy sant mu lay dellu la in shakartum la azidannakum su ngeen ma santee ma doole leen kon sant yàlla dafa neex pareegul de ñu ne ko yàlla ba tey yaay kan mu ne huwa allahu yàlla mooy ki nga xam ne alxaaliqu moo bind yàlla moo bind de yàlla mu ne nit ak jinne bu ñu dajaloo woon bugg a bind benn yoo munuñu ko yaakaar naa tubaab bi li muy xereñ xereñ li muy ay ay li muy mun a mun a mun a kër mënagul a defar ruux mënagul a defar lu am ruux donte kon benn yoo la yàlla mu ne nit ak jinne bu ñu dajaloo woon bëgg a bind benn yoo sax mënuñu koo bind donte kon ñenn si ñoom dañuy dimbale ñeneen ñi kon kooku mooy yàlla alxaaliqu moom mooy ki bind albaari u mooy ki sos lépp loo fi gis rek yàllaa ko sos doomu aadama sosul dara waaw yàlla moo del góor ak jigéen mu dogal si ñoom sëy mu wax leen fa ñuy jaar ba man yi mën a génnee ci ku góor ki dugg ci ku rox mu jigéen ki doom daal di fay sosu loolu ku ko mën ku mën na def loolu yàlla rek moo ko mën al musawwiru mooy aji portale ji mooy ki nga xam ne mooy portale doom bu nekk ci biiru yaayam ba xam lan la góoram jigéen ndax moo ko bind moo ko sos dëgg dëgg nag lahu ñeel na ko moom yàlla al asmaul husna baat yu rafet yi tur yu rafet yi tur yu rafet yëpp yàlla subhanahu wa moom la ñeel ndax moom mooy ki def lépp mboolem mat mboolem màggaay mboolem taar mboolem sell lépp yàlla ko moom lépp yàllaa ko moom mu ne yu sabbihu lahu moo tax ñi ko xam dëgg dañ koy jaamu dañ koy sàbbaal dañ koy bàkk dañ koy kañ mu ne yu sabbihu lahu dina ko sàbbaal maa fi samawaati li lekk ci juróom-ñaari asamaan yëpp dañuy sàbbaal borom bi subhaanahu wa taala niir yeeg weer yeeg jant yeeg biddiw yeeg malaaka ya fa nekk maa fi samawaati la wax lépp lu nekk ci biir asamaan day sàbbaal borom bi subhaanahu wa taala wal ardi ak lu ne lépp lu nekk ci biir suuf garab yi rab yi biir suuf la fa nekk te xamuñu ko ndax bind na lu ñu xamul lépp dafay sàbbaal borom bi subhaanahu wa taala wa huwa da dëgg-dëgg moom yàlla al azizu mooy ki màgg ci kennam ga mooy ku màgg ci turam yu rafet ya mooy ku màgg ci mën a fayu mooy ki màgg ci def euh, fay jaam yi mooy ki màgg ci xañ euh, not ñëpp moom yàlla alxakiimu mooy ki xereñ ki mooy ki xereñ ba mën a bind yàlla boo xoolee nu mu bindee asamaan ak suuf wallahi nga xam ne mooy alxakim boo xoolee nu mu bindee doomu aadama tànk yi ne ci suuf bopp bi ne ci kaw muy dox nga xam ni kii mooy alxakim soo gisee nu mu bindee garab garab taat bi ne ci reen yi ne ci suuf garab gi gudd banqaas see ca kaw meññeent bi di wàcc kii mooy alxakim motax mu ne yàlla mom moy ki nga xamni moy al hakim al aziz moy ku tedd ki te mag màgg al hakim moy ki xereñ ki xam lépp ki man lépp ki def lépp subhanahu wa taala mbokk yi li mooy seen tafsirul quranul karim di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu defal ñu déggal topp ba ñu mën koo jaamu dëgg-dëgg jaamu ginnaaw ba ñu xamee mooy kan ba bañ koo bokkaale kenn wala lenn ñu ngi leen di jox digg daje ba subaak jaamu ci beneen tafsirul quran wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu